fondateur euh, entreprise bii di Car Rapide Prestige nekk service de livraison euh, nekk itam président association Max deux roues Max maa ngi lay nuyu. maa ngi lay nuyu leen ziar baax di leen remercier itam ci invitation bi di mm-hmm. remercier équipe bu Walf bi yëpp. Mm-hmm. ñu ngi lay gërëm yow tamit si li nga ñëw wuy si sunu invitation euh, actualité bi moom neexul ci xol dara tey ci suba ñu yëkk accident bu metti bi am ci yoonu Louga bi jàpp Louga dem Saint-Louis. Euh, benn oto bu jógee woon maatam moo ñëw daal mu euh, saaraan ba lu toll si ñaar fukki nit ak ñett jamono ji ñàkk nañ ci seen bakkan te bilan bi bilan provisoire la yow ban na taxaw ban xeltu ngay def ci euh, drame bu mel noonu. déjà di di jaale ñi si ñàkk seen bakkan di leen ñaan yàlla yërëm te xaare leen àjjana. amiin. di wax tamit ne yu mel nii ñu ngi ñaan mu gëj fi vraiment Sénégal parce que tamit amoon nañ ko fii amaat ko yu gën a ndaw tey ñu amaat bii tamit kon war nañu xoolaat tey euh, mesures yu ñu jëloon est-ce que tamit mesures yu baax yi la est-ce que tamit amul leneen lu manqué li gën a mën a causer accident yi parce que accident tamit c'est vrai que tali bi moom kenn mënu see bañ a wax accident parce que tali beeg accident ñoo ànd mais tamit accident war nañ koo mën a moytu yenn accident yu métti yi parce que tey boo xoolee sunu sunu sunu oto yi boo xoolee tey tamit sunu chauffeur yi. boo xoolee tey tamit ñuy gérer circulation bi est-ce que problème yooyu yëpp waruñoo toog ñu xam ne lii mooy problème bi lii mooy indi accident yi est waruñu xoolaat suñu oto yi est-ce que suñu oto yi màggetuñu est-ce que suñu tali ndawuñu est-ce ñi tamit ñiy dawal oto yi est ñu ngi ci condition yu baax yëpp nit ñi yan condition parce que nit ki tam benn oto di ko dawal am na condition yoo xam ne war na ko nekk mënoo yëpp parce que da nga am responsabilité mënoo yëpp plus de cinquante ou soixante ne ñoom ñëpp seen responsabilité yow tegu na sa loxo nga bëgg def naka sulul noonu wala ngay liggéey ci naka su dul noonu kon nag responsabilité vraiment comme je dis toujours elle est partagée il faut ñu xoolaat nu ñuy organiser suñu milieu de transport bi pour mën fi éviter di yenn yenn yi. Mhm. léegi euh, causes yi si sa xalaat lan la défaillance humaine la wala tali yi ñoo baaxul wala boog euh, problème technique maanaam oto oto yu màgget comme ni nga ko waxee. bon causes yi moom li nga li nga juntu fii yëpp bokk na ci causes yi mhm. parce que oto yi màgget nañ tali yi màgget nañ yooyu yëpp problème la. kon tey je pense que tey Sénégal tool na foo xam ne il est tamit ñu ñu xoolaat suñu parc automobile ñu xoolaat suñu transport nan lañ koy innover parce que àdduna bi yëpp ñu ngi gérer seen transport sans problème parce que tey am na ay technologie de nouvelle génération yoo xam ne mën nga toog fi nga toog mais léegi comme mënoo contrôler nit ñi ñi ñi dawal oto bi mais léegi àdduna bi fa la tool kenn contrôler nit ki mais da ngay contrôler li mu yor ak poosam loolu ngay contrôler tey bu nit defee def infraction mu nekk infraction yoo xam ne cent mille francs ngay fay wala cinquante mille francs infraction yooyu gëj a gis ngay doon ci àdduna bi même corruption bu si am foo waree say cent cinquante mille francs nit ki bay laaj moitié la lay laaj soixante quinze mille francs foo ko fay doo ko gaaw a fayat mais six mille ak douze mille bëriwul oto yi tey mënuñu fexe ba chauffeur yi dawal ko si vitesse bi wala nangam sangam na ay appareil technologique yu xew léegi si fi mu toll oto bi da nga koy wax day daw quatre vingt du romb borom oto bi bu rombee 80 da koy xam police mën na xam ne oto bi romb na 80 mi ngi toll si dëkk bii balaa moo yegg beneen dëkk ñu ngi ko fay xaar. waaw ah, mais bokkoon na si mesure yi ñu jëloon ba. mi ngi noonu accident si kilo bi amee. mais technologie yooyu ça ne coûte rien. dañuy réduire vitesse mais loolu dañ koy réduire mais technologie yooyu noonu tey ça ne coûte rien mën nañ jël en place oto yi dañuy benn oto oto bi màgget na nga ne ko yow doo romb 60 comme mën a goo changer parc bi yëpp mais nga ne ko heure bii ba heure bii ngay daw oto bi bu dawee 9 heures a taxaw mën nga ci am contrôle alors que ça ne coûte tout c'est des yoo xam ne tey adduna bi fa la toll da dem dans le monde mais transporteurs yi ki yor camions yi dañ leen di wax heure bii ngay daw heure bii ngay pause mais ay appareil doo nga ko contrôler da ngay dem si aire d'autorité nga gis camions yi garé benn heure parce que seen heure pause dafa jot oto bi mooy noppale ko xam nga tey mën nga ne noonu ñu yor ñaari chauffeur si biir oto bi mais chauffeur bi ngay dawal ak ki toog mais même fatigue ngeen yor parce que il est pas dans de bonnes conditions toog na sonn na boo ko joxee volant bi peut-être que yow mën nga sonn à 100 pour cent mais moom sonn na à 80 pour cent parce qu'il est dans les mêmes conditions il est pas en de dormir tëdd ci biir lalam di jug di dem non non non kon tey àdduna bi dañoo war a fexe ñoo am innovation dans suñu transport bi et réorganiser xool suñu parc bi nan la ñuy def ba changer ko parce que tey ñu ngi quand même évoluer dans le transport di fi waxu terre di fi waxu BRT bëgg nekk ci fii di bëgg am camion yoo xam ne. biñ fi bus yoo xam ne bi ñu fi daw xamoo kañ la camion fou yoo xam ne xamoo depuis kañ ñu ngi fi mais loolu c'est un problème c'est c'est un réel problème qui va pas se régler en disant oto yi nañ daw guddi bu ñu dawut bëccëg non non non oto yi mën nañ daw heure bu ñu neex parce que àddina fa la toll mais ñuy contrôler oto bu nekk nangam heure bi mu war a daw et aussi toucher aux poches parce que ñëpp poche lañuy daw éduquer ñi par rapport aux poches parce Europe ay radar am dangay gis nit ku daw daw ba dugg fenn ñu ne ko da nga war a daw 30 kilomètres heure day daw 30 kilomètres heure parce que xam na li ko ci mën a fekk te pourtant kenn taxawul surveiller ko parce que xam na ne bu doyee ba ñu flashé ko bu yeggee amende ko ci fekk bu 100 euros bu 200 euros mais loolu kooku dindi mu naqari ko kon nag nañ jéem a xool des fois modèle yi nga xam ne dox na feneen ñu jéem ko doxal fii waaw mais jéyee yu mel ni bu amee solo gars yi dañuy bëri nga gis gouvernement bi jóg ne maintenant tolérance zéro ñu nit wala sax dañu war a instaurer à point est que yaakaar nga ne solution bi foofu la ci permis à yi. non que tey ñun émotion rek la ñuy demee. Mhm. affaire bi day doon actualité deux trois jours après jeex na. permis ñu nekkaat ci leneen ñu mhm. nekkaat ci politique. parce que réewum politique lañ ne. Mhm. léegi nag boo xoolee permis à point tey mais ñi gérer permis normal yi ñoo gérer permis à point ñu yor permis normal yi ñooy yoraat permis à point kon est-ce que problème bi problème permis la du problème permis parce que jàngoro bi benn la boo feebaree docteur bi ngay dem mu faj la mooy docteur bi nga xam ne yow moom nga xam yow tey tamit boo feebaree si même docteur nga jëm docteur bi mooy faj feebar bi ñun ñëpp ci lañ jëm mais problème bi kon du loolu du problème docteur bi à point boobu ñuy wax sax corruption bi la gën a la gën a yokk rek waaw c'est encore augmenter parce que problème bi mooy nan nga koy contrôler nan ngay defee lii nan ngay defee lële nan ngay defee lii déjà que tey am nañ problème bi nañ xool nu ñu régler problème bi mais pour man permis à point c'est bien parce que àdduna bi dafa war a évoluer man damay bëgg tout temps am innovation man je toujours pour ça mais est-ce que c'est le problème pour moi c'est pas le problème du permis à point parce que la personne qui a son permis normal def ay infraction fexe ba jotaat na beneen bu ko jiitu woon euh, altine dañoo xëy fajar euh, gis euh, ay euh, néew yu ñu jëlee ci géej ñu nekk ci tefes bi fii ci wakkam ay nit ñu nekkoon ci gaal bëggoon dem bitim réew ngir mën a liggéey foofu gën a sutural seen bopp sutural seen i waajur immigration clandestine yow nekkoon nga bitim réew nga dellu ci Sénégal investir fii nekk fi yor fi sa sa entreprise boo déggee ni am na ay ndaw yu suux ci bato ba ñàkk seen bakkan parce que dañu doon dem bitim réew lan la lay def. bon comme ni nga defee tamit. ñaanal yàlla yërëm leen te naa àjjana xam nga c'est un peu triste ñu def émission boo xam dañuy génn si benn jaale dugg ci beneen jaale ñu bëgg ne réew mi ñi lañ ko bëgg bàyyi tey génn nañ si manifestation am na ay mort ñu ñëw fii tam amaat ay mort ñu ñëw fii tam amaat ay mort ñan ñooy dee. sans responsable. waaw que des jeunes qui meurent. mais xale yooyu di dee mais lan mooy problème bi lan mooy problème bi mais problème bi fan la jógee. problème bi problème espoir la. ci sa xalaat luy problème bi. mais problème espoir yaakaar la ñàkk yaakaar ñàkk tey ku nekk si si si li nga ne. am nga ay ndaw ñu la si topp secteur yëpp tey man am naa ay ndaw yoo xam ne topp nañ si li ma ne. am naa ndaw yu bëri yoo xam ne ñu ngi liggéey ci li ma ne muy que si association bi muy que si si si entreprise bi ma mais ndaw yooyu tey bu ñu ñëwee bay gis man li may dund ak ni ma koy dundee mais man nan laa leen di nan laa leen mënee convaincre nan laa leen mënee joxe espoir parce que tamit naxante bu ma am tey ñun ñi nga xam ne ñu ngi demoon tey nekk Europe jóge fa ñëw mais bu ñu demee ba suñu xel ñun di sikk sàkk naan est-ce que duñ fa delluwaat mais a un problème. ah mais ñun ñëpp koy xalaat du ma si nga delluwaat gis nga jeunes yu yu liggéey. ni man bàyyi li nga fii yëpp. billaay wallaay jeunes yu bëri yu mel ni man bu leen leeroon ne peut-être situation bu ñu fa bàyyoon dañ ko fay fekkaat dinañ dem bàyyi fi lii nii. parce que kon commencé rëccul bàyyi ñëw fii. du ko wax rëccu parce que pour man àdduna duñu rëccu dara lépp leçon la parce que surtout ko boo amee ñu la topp rek boo waxee moo rëccu bi day xaw a diis il faut toujours nga garder benn lueur d'espoir parce que yàlla tamit ñu ñëpp ay doomu adama lañ yàllaa fi ne mais tey boo demee ba toll foo xam ne da nga naan mais man est-ce que li ma bàyyoon gënul li ma yor loolu problème am na si réew moo xam ne ñu ngi wax PSE ñu ngi wax émergence ñu ngi wax leneen ak leneen ñu ngi tudd ay milliards pour jeunes yi te mënuñu fi tudd benn jeune boo xam ne du doomu diw la je je dis bien du doomu diw moo fi liggéey nekk milliardaire amul moo fi liggéey réussir amul man ku ko wax je défie tout le mu jox ma benn exemple ma xam ne kii lii mooy sukkisoon fii la jógee fii la nangam ñun entrepreneur xamante ne ñun ñëpp ñëpp a xamante fii lañ jógee ñëpp fële lañ jógee parce que ñun ñëpp nekk si même kon ñun la plupart ñun xamante nañ dañuy côte côtoyante kon nag mënuñu toog si même réew di liggéey di am que des problèmes ñëw na il nous a presque mis tous ñun ñëpp na ñu ngi góorgóorlu pour mën a jugaat mais force Covid fond Covid ñun ñëpp kenn amu ci. ñan ñoo ko am entreprise yu mag yi banque yu mag yi nangam sangam yu mag yi ana cette jeunesse ils nous ont laissé ñu abandon ñan lañ fiy dawal fi ñu toll ni problème banque problème huissier loolu la ngay xëyee suba ba ngoon banque bi day xëy ne la non bi xëy ne la li ngay góorgóorlu pour mën a jugaat sax boo ko dajalee dem joxaat leen ko fii ñan ñoo la fi légal microfinance yi ban taux lañ lay lebal 18 pour cent wala 22 pour cent yow esclave bi pour ñoom da banque bi nga koy jox 300 francs bi nga garder ko te bu problème amee banque bi day fàtte ne yow 9700 yi moom nga ko doon jox. da lay indil problème. Ah. yow nga bëgg dund si problème. saisir loolu lañ fi dundee de ñun entrepreneur loolu la ah. chaque jour bii ñëw nga réglé ko bële ñëw nangam sangam da ngay suul bukki suuli bukki ba pare nekk si moo xam ne da ngay côtoyer toutes les personnes importantes de ce pays là te tu ne nga dem benn pas en avant. tout le temps tu as l'impression nekk fi ay structures il y a des mais d'ailleurs tey peut-être pour man objectif am loolu la bu 2 millions de personnes nekkee fii du choisir tey naa jël 500 personnes yi j'en fais des champions ñu réussir pour que ma mën a jëlaat beneen cinq cent day jox 2 millions yëpp comme ça deux millions yëpp dans 3 ou 4 mois ñu nekkaat même étape. ñoom quantité bi lañ ciy gën a wër. exactement. Hmm. amuñ amuñu ay champion il faut que ñu am ay champion waaw il faut que ñu am ay champion hmm. tey ñu ngi ak FONGIP mais FONGIP structure bu baax la parce que tey kuy nangu ñëw garantir la à 70 pour cent mais loolu si est très bien mais bu la garantir à 70 pour cent mais ban banque moo la jox xaalis bi da ngay yegg banque bi ne la am nga kër foo jëlee kër. malgré garantie FONGIP bi malgré garantie FONGIP bi fan ngay jëlee kër. ñun tey réew bi nekk nañ comme li may wax chaque jour di ci liggéey lu ñu am dugal ko fi du kër bu ñu fi am wala bu leen lu ñu fi am nga gis ay yoo xam ne jusque dañoo mën a yuuxu dañuy politique wala leneen lañ fi def ñooy tabax ay ñooy def nangam ak sangam c'est vrai que yàlla boolewul wërsëg yi mais loolu jeune bu koy gis wala nangam sangam mais tu vas dire li ma nekk nii baaxul mais naa dem investir sama leneen ci def leneen koo xam ne bu defee benn nit lay yor yow nga yor plus de cent ou deux cent personnes qui travaillent pour toi chaque jour ñu ciy xëy même bu dee mille francs ñu ngi koy jël di ko yóbbu yow munoo régler problème boobu yow munoo dépasser benn étape bi mais après lan ngay def jeunes yi lan la ñuy def pression sociale baa ngi fi mooy liggéey ci benn kër. yaay ji topp ko wala nii problème bu am ci kër gi ñu teg ko même bu bu koy yaay ji tegul benn pression sax moom pression lay doon si moom parce que day gis chaque jour li muy dund chaque jour li yaayam dund li papam di dund ah mais boo gisee xaalis ñoom bi ñuy joxee pour dem si euh, gaal yi lu minimum trois cent mille la mais trois cent mille yooyu warul mën a nekk un début pour nga entreprendre fii au Sénégal non dañuy fay sa loolu fii nii mën mais problème bi gis nga commencer dafa mais loo commencé te amul accompagnement du dem amul business booy commencé amul bu amul accompagnement du dem. foofu exactement da ngay benn business mu commencé pérenne commencé dox nga commencé am ay clients nga am problème mu xaalis pour passer beneen étape. parce que business tam ku koy def il faut nga passer benn étape parce que say matériel dina am problème parce que di nga am imprévu boo demee ba ci biir ñi la war a accompagner mënuñu ñu la à yow benn gàllankoor dal la comme Covid bi nu ñu dalee suñu entreprise yi tëj mais on est obligé de payer on a tous les problèmes du monde alors qu'on a même pas de fonds de Covid ñu ngi topp boobu léegi c'est-à-dire que da ngay rebondir si leneen. mais problème yooyu ñu ngi lay dàqal. 1000 yi yéen amu si. 100 francs man de man aw ma si. Hmm. te j'ai beaucoup d'amis d'entrepreneurs qui n'en ont pas après ñu toog di dégg des grosses entreprises des grosses entreprises ñoom ñoo am fonds Covid ñun on en a même ñu amoon sax. si Covid ba léegi laa la wax ni ñu doon liggéey koo ameloon bor mi banque koo ameloon bor mi leneen ba léegi mi ngi la topp te sa liggéey toog nga benn moment demeewul noonu te fii lañ gis Sénégal pendant ce Covid là livreurs yi ñoo doon génn ci mbedd bi di reyanteeg loo xam ne gisuñu ko feebar boo xam ne dañ ne lii gisoo ko bu la jegee mën na laa rey jeunes yi affronté kooku noonu mais kon jeunes yooyu lan lañ ragal loo xam ne dañ ko gis duñ ko ragal feebar boo xam ne gisoo ko yow dañ ne la kii bu sëqatee wala bu jege la laal la rek dangay ngay dee amagul garab bu ko faj. jeunes yi ne loolu du ñu téye ba président la république toog féliciter ces jeunes la ay livreur amul fenn ci àdduna bi mais yow nga toog sa problème secteur boobu ba léegi ñuy toog ngay dégg ne ñii ñu ngi am problème ngay toog ne yow teg nga fii milliard def nga fële milliard sa jeunes yi ñu ngi dugg ci gaal gi sa jeunes i mais dinga nga ne mais attends y a problème ñii ma xaalis bi ma teg si ñii man pour man sunu président bi ñu am waroon na am problème yëpp am des jeunes que am nañ président jeune moom c'est l'exemple parfait bu fi màggee yaroo fi liggéey fi am ay ambition am réussir fi mais moom moo ñu waroon jaay projet boobu parce que moom fi loolu loolu la def. ah mais moom teg na ay bànqaas pour ñu jàppale jeunes yi. waaw mais kon war na xam ne problème am na. mais yow boo yeewoo nga ne ànd sama sama booy ñu ne la booy dem nañ jël gaal gi mais nga ne ana milliards yi ma leen jox. waaw programme bu mujjee bi mu fi def mooy xëyu ndaw yi. waaw boo toogee nga ne may man 450 milliards. pour 3 ans boo toogee gars yi wax la ne le président jox nañ 4000 jeunes ñu liggéey. mais tu dois poser la question. yéen naa si ay morom. bëri mhm. naa ay morom boo toogee def naa ne ba gis loolu yëpp la question bi ñu war a poser mooy mais li ñu may wax nii yëpp jox nañ ñii xaalis ñii ñu ngi xëy di liggéey mais wala problème pourquoi nit war a mën a yeewu Sénégal ne man damay jël gaal te xaalis bi mu ñu koy këpp si biir Sénégal bi loolu loolu c'est à voir c'est vraiment à voir ah y a réel problème entre état bi ak jeunesse bi pour man connexion bi dafa des lu bëree bëri dafa des lu bëree bëri ay nit ay takk seen seen costume ak cravate ñëw expliquer wax wax wax wax kooku lu la mënta expliquer lu mu la mënti def lu mu mënti jàng bu la fekkee si mënd bi nga jàngal ko moom lu mu xamul parce que tubaab loo tamit def toujours pratique yow loo ma mënti jox x plus boo defee nii boo defee nële boo defee nii man su ma doon jaay caméra yi ak toog fii lu ma si mënti jàng bu ma yegsee ba fii si technicien bi branché fii li dina ma si wax loo xam ne xaw ma ko dina ma teg si kot dina ma ne defal nii bul def nii teg ko fii bul teg fale mais loolu yaa dina tey mënuñu nag nekk ay jeunes nekk si suñuy différents secteurs ba pare di fi am problème yi yëpp après comme ça va se passer toujours des entreprises étrangères vont venir au final on va travailler pour ñun dañuy dem immigré liggéey pour ñoom ñu ñëwaat Sénégal ñu liggéey encore pour ñoom on reste des immigrés au Sénégal on reste des immigrés ailleurs c'est le même type immigré rek bii dafa dem bii toog bi immigré local la bala immigré peut-être euh, boo xam ne du local parce que fii ay jeunes ñu ngi am ay idées ñu ngi ko fi def comme lii ay entreprise de transport def fii man tegoon naa ko fi pendant yaa bi may soog a commencé ñu interdire ma ko fi tey entreprise étrangère ñu ngi ko fi def ci biir réew mi ma leen di xool chaque jour di leen tiim. loolu lan l'application que je train de faire moi je a y a au début ay 2015 2016. ñu ma tu as la législation tey ils sont en train de le faire ils sont gis ay société ñëw fi indi ay moto électrique wala nangam ñu ñëw jaar si ñun ñu ne leen pour nga liggéey Sénégal dangay fay moo ñu dañoo gëm suñu réew ah. man da ngay ñëw ma ne da ngay fay parce que da nga bëgg jël xaalisu réew mi nga dem gis ñu dem ci état wala ñu dem ci keneen ñu ubbi leen lee grandes portes taalal leen tapis rouge nga toog sa kër jàpp télé gis loolu ay jooy rek a lay dese mais da nga naan mais man fan laa ne qu'est-ce qui quoi où est le problème. réew bi daal nekk fi gan moo gën nekk fi doomu réew. yee moo fi gën fuuf fii kay moom nekkal fi gan mën nga am beaucoup de chance que li ngay def dem que nga nekk ci biir réew mi parce que duñ la gëm duñu gëm doomu réew mi te doomu réew mi fi mu toll nii vraiment ku leen gëmul yaa ngi ci erreur. parce que di ay jeunesse bu déterminé moo fi nekk jeunesse bu pare boo xam ne pare na moom pour réussir pare na pour liggéey parce que quoi qu'on puisse dire booy ay jàmbaar lañ da gis nit yoo xam ne vraiment ay jàmbaar lañ bëgg nañ réussir da ngay gis nit yoo xam ne ñu ngi jóge fu sori foo xam ne man damay am ay nit yoo xam ne dañuy jóge ba yëmbal wala ba ginnaaw nga wax leen 7h30 war na la fekk mais nit ki doo xam nu muy def ba yegg 7 h ñëw liggéey suba ba ngoon. oui jeunes yi yaafu ah. wax naan jeunes yi bëgguñu booy ñu ngi def lu ñu mën booy boo fi gis mi ngi góor góorlu mi ngi jéem a def loo xam ne pour réussir comme li ngay wax trois cent mille quatre cent mille y a des milliers de jeunes yu def loolu mais loo amul accompagnement mun ta dem koo jëloon sa frère boo jëloon cinq cent mille jox ko ne ko mu ne dama am business expliquer la ba convaincre la nga jox ko cinq cent mille dina dox un mois deux mois trois mois quatre mois mais business moom dina soxla oxygène comme ñun ni ñuy soxla oxygène amul oxygène bi day dem day wàcc ci suuf rek c'est aussi simple que ça te toll nañ foo xam ne gis nga après zéro y a rien booy loolu la ñëw après zéro on déjà zéro après zéro amul dara kon ñun tey ñu am ak ñu bañ a am c'est la même chose te gëmuñu ne réew mi mën nañ fi am réew boo xam ne pétrole mi ngi fi waaj a génn lii mi ngi fi waaj am mais dëkku espoir la dëkk boo xam ne war na mën a am yaakaar war nañ ko mën a defar léegi. milieu bi nga nekk di livraison est am nga ay employés ay ndaw yoo xam ne da nga jékki-jékki dégg na ñoom jël nañu gaal yi. waaw mais j'en ai j'en ai j'en plusieurs am na ñoo xam ne dañoo yegg léegi ñooñu di yegg tamit dinañ incité ñeneen am ñoo xam ne yegg nañ si jël nañ gaal yegg mais bu moom li ma la wax mooy bu ñu ne tey yegg na man su ma demee ba am benn partie sama biir xool kont ma kontaan mooy loolu dafa garaaw normalement waruma kontaan pour loolu mais damay xalaat ma ne kii ni ma doon gis muy liggéey fii di xëy suba ba ngoon di daw suba ba ngoon kii bu ko defee foofu dina réussir loolu nga koy mën a yéene mais c'est dangereux parce que tey nga ne nit jël na gaal dem mais loolu waruñ kenn accepté ko parce que man tey nit mënul ñëw ne damay jël gaal mën a demal parce que man ngay xaru fa laa mën a yam xaru rek laa la mën a wax du ma la wax boo toogee réussir boo toogee def lii parce que su la ko waxee dama lay tooñ parce que man mi jël avion jëluma gaal ñëw am naa problème pour réussir man mi mën a jël avion demaat am naa problème pour réussir kon man mënu ma la wax saa boo toogee da réussir yàlla nag moo yor lépp parce que wërsëg gi bokkul dara bokkul mais il faut qu'ils arrêtent di toog si rajo ak télé naan booy boo leen amee quatre cent mille boo amee cinq cent mille ñu ngi fay gaal gi loolu mën nga fi réussir loolu ay waxu kesew kesew la loolu bu mënee nekk ñoom nañ dem ñu def ko ñu wan leen exemple parce que ñi fiy toog di wax ñëpp amul ku fi joxe exemple ñi fiy toog di wax entrepreneur yëpp jeunes yëpp amul ku fi yor société c'est bien boo de parler quand tu n'as rien du tout de dire que non booy bëgguñu dara booy bu man bu ma amee cinq cent ku ma ko wax ma ne la indil cinq cent mille a ñu topp sa ginnaaw nga wan ñu yoon bi naka la dañuy toog di wax rek di wax lii di wax lale di wax lii alors que xamuñu li nekk ci xolu booy xamuñu tamit li nekk ci xolum liggéey bi biir Sénégal loolu lay problème bi problème bi business moom résilience gëm li ngay def ba pare nga am financement pour mun koo def ñetti choses yooyu kenn mënu koo tëb entreprise yi bu ñuy jógee Europe di ñëw fii dañ leen di jox ay leve de fonds ay milliards la ñuy indi xam nga milliards yooyu pour lan la pour pert ko seetuñu ci benn gagnant mooy dañuy ñëw pour rey tout le marché mooy ñoom dañoo xam yoon da nga ñëw jox la un million d'euros wala deux millions d'euros ne la demal yow boo ñëwee max bu facturé mille francs nga ne man fi max facturé mille francs deux cent laa facturé parce que yow ki ko daw di ko rajouté am nga tant de milliards pour def ko mais max day mujj dee parce que du tenir le coup yow tey loo ma bëgg a bëgg des fois dina nga toog benn jour affaire yi xaw a metti nga ne ah waaye ma jël deux cent bi garaawul dëkk indi fi seen i milliards yi milliards commencé rey business ba pare ñoom seen business du dem parce que Sénégal quand même am na benn charme bu fi am mooy fii loo fi business business dafa am ay réalité gis nañ fi entreprise yu bëri tëj nañ parce que Sénégal am na ay réalité am dans le monde business loolu moom mën nañ wax lépp mais quand même am nañ parce que sénégalais bëgg nañ sénégalais sénégalais buy utiliser bu jàppee ni lii sénégalais ko moom day jéem a jàppale moroom sénégalais loolu moom man gis naa en tout cas sama milieu naa ne ñu bëri dañuy ñëw ne bi car rapide la tudd non car rapide ñoo moom lu mu metti metti dañ na xaaral ñu jéem a jàppale société bi mu dem. mais ñi leen jot jot ñi ñi des ci jàppale bi mooy état. ah waaw état comme toujours parce que tey comme li ma la wax rek tey nanu nanu fait pas rêver nanu fait pas rêver dans le sens man su ma toogoon gis sama benn morom am naa sama benn copain ma toog gis Cheikh càq ñëw ma gis ko vraiment qu'il réussi damay jàpp ne Cheikh mi ni mu def man mën naa ko def ma tourné gis sama benn xarit. yor entreprise am di ci liggéey papis tey il a réussi damay jàpp ne damay réussir ma gis laay tey yor méca atelier mécanique réussir damay jàpp ne day réussir mais ñu ñëpp ñu dajee di waxtaan problème rek la ñuy wax problème sur problème ku nekk léegi day wan morom maa la problème nekkatul maa la gën a réussir de mais ku nekk léegi day ñëw wan morom maa la problème mais fan la ñuy dem on va aller nulle part ba pare chaque jour boo jàppee télé bi ubbi sa journal nga dégg pour la jeunesse nangam nangam. 33 mm-hmm. milliards pour ça. mais da nga naan milliards yi est ce que dañ koy tudd wala est ce que réellement mi ngi fi. waaw ana milliards yi. waaw est ce que réellement mi ngi dugg ak fan lay dugg parce que man gisuma milliards yi te comme li ma wax vraiment ci bilan président bi nga xam ne am nañ ko mu nekk mooy président jeune bu fi jàngee màggee fi yaroo fi réussir fi moom balaa mu fay jógee waroon nañ ko génneel benn listing ne ko voilà sa PSE voilà Sénégal émergent voilà jeunes yi nga xam ne yaa leen créé voilà ces jeunes ñu jóge si mag yi fi newoon ñëw si jeunesse bi. ne ñii réussir nañ mais amul amul exemple sauf comme li ma la nga nekk doomu diw doomu tel nga wala doomu tel mais yow da ñëw rek bëgg bokk ni ñëpp bëgg xeex ni ñëpp xam ne Sénégal bi kenn moomu ko pour nga dem ñoo dina metti mais ñun gëm nañ ko dina ñu ngi ciy xeex chaque jour. waaw ah, justement ñu ngi dem ci élection présidentielle. est-ce que yaakaar nga ni mbirum euh, jeunes yi dafa war a nekk ci centre élection yi. non pour man de. bilan pour man li yi dafa au cœur. Mm-hmm. pour man kuy bind loolu rek nga war a bind parce que réew mi problème boobu rek laa am problème mu jeunes mooy problème réew mi jarul ngay bind leneen parce que leneen loo bind nit ki mën na ko bañ a liir mais tey boo focusé concentré wu si jeunes yi kese nga ne lii mooy problème mu sama réew am nga chance jël réew mi parce que loolu lañ soxla dégg loolu lañ soxla ku ñu ko jaay yaakaar bi exactement kuy ñëw wax ñu. ñu am yaakaar ni lii nii de mën nañ see gis sunu bopp. lii nii de nax ba sonn tamit max. waaw léegi nag yombatuñ ah. nax de. politicien bu bëgg falu rek. yii emploi des jeunes ngay campagner ku amul liggéey yëkkatil sa loxo. buñ la ah, falee mais léegi boo xoolee buñ la falee nga taxaw fële nga ni la vocation d'un état c'est pas de créer des emplois nax de. Hmm. avant lañ neexoon nax te avant sa nekkul woon ay nax parce que avant sa marchait autrement ngay nekk ci kër paa bi nekk fi wala yooyu am kum àndal bu ñëwee moom mooy joxe instruction dem leen ngeen votel diw ñëpp topp ci ginnaaw parce que instruction bi a été donnée c'est comme ça que ça la politique à l'ancienne léegi da ngay gis sa propre frère yow sa propre frère mën ngeen bokk parti yu différent bokk ci même kër gi parce que léegi gis-gis yi bokkul le naxaate bi léegi mënatul ne de léegi naxaate dafa xewi de léegi da ngay teg nit ñi ci table bi lu ñu mën a jàpp ñu jàpp ko te ku leen wax loo deful tamit xamal ne dinga am problème doo ne ci jeunes yi moom léegi comme li ma la wax on a une jeunesse boo xam ne dafa bëgg nekk ci réewam réussir ci réewam